Eh, ku baax ki lay ñaan ak njabootam yépp di nuyu Baye Moussa sunu gannaaw ak mboolem taalibe ak cheikh yi fi daje yépp gannaaw bu ñu nuyoo loolu ñuy nuyu borom dëkk di ko jéggulu tey moom dama amul jot waaye daanaa def su ma ñëwee ba ku baax ki gisuma damay daal di génn ndànk nuyu leen ñoom cheikh yi yëpp ñoom cheikh Mourlo mi ñu sant yàlla bu baax gërëm sunu sang sunu wasila cheikh musa sallallahu alayhi wa sallam nanu sant yàlla bu baax e cheikh Omar Ndiaye mu baax ma yàlla yokk ko leer sunu magam taalibe daan na wax kuy yooti jot fa nga dëgg dëgër ku fàtte ku la fal faleeku kon ñu kam kan mooy Cheikh Moussa sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu sell bii mu jaaree ci jëmm ji mbudaay rekk doy na exemple ci liggéeyu Cheikh musa ci jaami yàlla yi ndax defe naa tànt bi am na lu jiitu woon tànt bi nekk mbudaay loolu ak lii defe naa wuutee na lool kii yàlla may mu jëf loolu kenn la ci jamono borom jamono la mu Cheikh Moussa sallallahu alayhi wa sallam moo def kii muy yonent def ko muy waliyu wallahi daa xaasim Cheikh Moussa yonent la waliyu la waaye Cheikh Souleymane yonent la waliyu la barke laa ilaaha illallah wér na ma ko gërëm su ma neexee jaar ci Cheikh Moussa su ma neexee jaar ci yàlla waaye Cheikh Moussa nee na ku ma gërëm ku ne yàlla la gërëm te gërëm na ko te billaahi wallaahi wa waxuma li sëriñ bi wax ci làmmeñam ci sama kanam ma teewee ko waaye li may jokkook sëriñ bi ci samay nelaw mu di ma jot li ngërëmal Cheikh Souleymane man moom yàlla lu wér la sëriñ bi gërëm na ko gërëm na ko wax ma ko ci samay nelaw billaahi barki Cheikh Moussa Cissé kon sang ñaan say taalibe luñ lépp luñ wax ci yow rek ci mbaax weesu nga ko lu ñu wax ci yow ci ak tabe weesu nga ko ñun mën nañu ko seede ñun ñi nga xam ne sa magam taalibe lañ jiitu la ci kër gi ñu wëlbati ko bakkaan liggéey bi di muy dox muy dox ba sëriñ bi joxe gannaaw ba bis ni ki tey sa arrière amul saa su ne képp ku ànd ak yow rek dafay da nga koy encouragé ci aqiqa ci saahir defar baatinam defar saahiram te ne ko nag nii mooy liggéey bi lii du liggéey loolu boroom kilifa rek ku mat kilifa rek moo koy àndee ak ñoñom ñun nag ki ñu yàlla booleel ñu ànd ak moom muy Cheikh Moussa sallallahu alayhi wa képp ku ànd ak moom liggéeyal ko faayewu la ko wallaay da jub da juble da nga baax da nga baaxle da barke da nga barkeel soo naxul sa bopp ngir lan moom moo ko liggéey ci digganteem ak boromam ci digganteem ak Serigne Touba Xaadimu Rasulullah ci digganteem ak maam moo Xoroja Cheikh Moussa musul wàcc musul am waaye musul ñàkk lu mu am yóbbu Touba lu am bokk ak njaboot diwaan bi Cheikh Souleymane donn na ko ci tabe googu la nit ku gor a ngi nii nit ku nagoo liggéey ngi nii ci jaayir ak ci baatin bokk naa ak moom liggéey liggéeyu xaal eh, waaye ànd ak kilifa gu mat kilifa yaa am sang yu baax yaa am sang yu baax yaa am sang yu mandu muy Cheikh Moussa njabootu Cheikh Moussa Cheikh Alaaji bay tool bu xam ne war naa jar un million toolu xaal Cheikh su lay dugg ca woolu ma ñu bokk liggéey ba liggéey ba yàqu lan la yàlla dogal Cheikh Laye Keba musu koo wax ci làmmiñam kenn déggu ko Cheikh Souley muñ dem liggéeyi <laughs> yàlla du nit waaye fay na ko de fay na ko de toolu xaal ba fay na ko de étage bi moo ëpp toolu xaal étage bi mu liggéeyal Cheikh Laye Keba kon moo xor yi moo ëpp toolu xaal waxuma millions yi mu koy jox kon yaa gore yaa xam liñ la jox yaa liggéey liñ la jox waaye firnde na résultat yaa ngi nii kon ñun dam ñuy siggil ñun taalibe yu mag yi ci Cheikh Moussa waaye siggil nga diine islam siggil nga Cheikh Moussa siggil nga njabootu Cheikh musa ñu ngi lay ñaanal fan gudd wa ànd ak batteeg wér yàlla defal la ko ak koo yaakaar ak ku la yaakaar yàlla yàlla defal la loolu xam-xam bi du luñuy dulunya du luñuy ñuy xam-xam bi kep ku ko bëgg da nga joxe sa bop joxe gu wër ko am yalla du cuune sa moromam doomu aadama ngay nax wa yalla kenn mënu ko nax billahi wallahi taala lim am da koy jaay rek jaayante le Cheikh souleyman def ni serignam jaayewante won ak boromam ak diggante moom Serigne Touba diggante moom maam ma xore noonu la sosu lay jaayante ak Cheikh Moussa waaye sew de jëndal nañ la sa marchandise njëg gu sell moo tax nga man nii Cheikh Moussa moo xam yàlla moo xam la yàlla moo xam yàlla moo xam la yàlla mu ci yow te lim la woon gisu ko feneen foo dem doo ko am billaahi ay taala képp ku ne doomu aadama mënta gis yàlla àggoo ci yàlla xamoo fu yàlla féetoo yàlla fees asamaaw diggante asamaa suuf yàlla fees ko fees suuf si daj àdduna kap benn pepp suuf bi boo xëggee ci suuf xool ko gis ko mënoo gis yàlla ma ne malade bu nëbbee feebar médecin ma ne wér dina ko jefe ñàkk médecin la dañoo amul wasila waaye ko am wasila bu mel ni Cheikh Moussa billahi boo ànd ak moom ba mu nopp nga jàkkaarloo ak jëmmi yàlla ci kooku mooy Cheikh musa moo tax nga man li nga man Cheikh Souley ànd naa sëriñ bi siyaare ko mënuma jëlal basang ñi dem ci ngédd la ñi dem ci ngédd la fi mu yeew nag yi ak fas yi ak mbaam yi di leen lopparti foofu laa teg dama teg yi fële na maa ngi jël rato bi pour xëcc ko mënuma déedéet lalal basangi yi ma ne ko sëriñ bi may ma rek ma jël rato bi mënuma lalal basangi yi du sobe tilim la tilim booy sanga mu sobe ci xol la ne rijaalu xay bi yaakaari jaam ñi sëriñ ñi sëriñ kooku mooy Cheikh Moussa kooko xam yàlla barke laa ilaha illallah koo xam yàlla lii soobee lalal basang yi ma ne ko sëriñ bi man lii sax ñeme mu ci entré sama bopp waxuma la mu ne ma lalal basang yi dama la ne lii soobee tilim la boo sang boo sangoo mu set sobe ci xol lan moo tax yàlla ne yawma laa yanfa'u maalun wa illaa man ataa Allaaha bi qalbin saliim sikki yaa ngi daje ci xol yi mbaax yaa daje ci xol lu waay di jëf muy lu baax ci xol bi la lu waay di jëf muy lu bon ci xol bi moo tax cheikh mu rab bi bu jotul foofa mënta defar taalibe mu képp ko doomu aadama bu mënta jot foofa defar ko mënoo defar sa taalibe waaye cheikh mu rab bi benn cheikh mu saa nag mën na ko moom de mën na ko moom billaahi wala ca laa xamee ne mooy yónnant ca laa xamee ne kii moo mat yónnant ca laa xamee ne kii mooy bu sabaan mooy borom jamono man suma taalibe bu ma bu ma bu ma enterré ci fi ma yeew suma fas danaa ko na bale ko njëkk sama xam-xam ma fa àggut moom tawhid lay dund dund leneen lu tawhid ñi dellu toogaat ci biir ngédd li lim lim fi bay xaal bi ñor na mën ne dem indi ci xaal bi ñu indi ci xaal bi mu ne mu xottil ñu xotti mu ne daggal ñu dagg mu toog niir ko ba mu yàgg mu ne eskay tilim de ci doom aadama rekk la nekk waaye yàlla de lépp ma sell ba nga jëlee doomu peppu xaal bi ne ko dut ci suuf si bàyyi ko suuf si dénk ko yàlla di ko roose ba fii mu ne nii yàlla melal ko nii mu melal bañ am ci soxla dagg ko tilim mos ci dugg biñ ko xottee sa loxo laal ko ci la tilim doog a dugg yàlla sell yow doomu aadama am sikk kooku tawhid lay dund de xam ngeen ne kooku tawhid lay dund doo ko taajal dëngamam ay ganaar wala ak i nen wala ay boisson muy dabu neex taduwa la muy la muy la muy njëkk la muy njëkk fikkiru mooy yàlla la cay gis lu ci gis leneen lu dul yàlla ku mel noonu kum ànd ak defar la sa lépp baax kum ànd defar la sa lépp baax yàlla dañ koy xam yàlla dañ koy gis yàlla dañ koy xam yàlla dañ koy gis yàlla dañ koy gëm yàlla dañ koy xóolu waa xam yàlla te xóoluwu la yàlla sa xam des na xam yàlla gëmuloo yàlla sa xam des na barke laa ilaha illa képp kuy jaamu xiram boo doo bi lay xamoo yàlla dama ko daan wax ba yàgg mën a ci fekkoon na ne coow li bëri na wax ji bëri na su suñ defoon visite contre visite dañ xam góor yàlla yi ànd ak Cheikh Moussa ñi nga xam ne Cheikh Moussa doy na leen ku xam ko doy mu jox la lu doy danga ko war a doyloo Cheikh Moussa doy moo xam lu doy nañ ko doyloo laa ilaha illallah ak chèque la ba ci biiram doy na kaaraange kum doy dara du la doy léppam ci biiram lépp ngi ci biir maqaame yëpp ngi ci biir baatu laa ilaaha illa martaba bi yëpp ngi baatu laa may yëpp ngi ci biir baatu laa ilaaha illa may la borom may du waaye du moom rek am may nag waaye li may la borom may du weddi may képp ku am may maa nga gëm yàlla dangay gëm ne yàlla ko jagleel dangay gëm ne yàlla ko may waaye na yàlla na may gi yokk yàlla na mu yokk yàlla na gi yokk su fekkoon mu Moussa dafa am juróom-ñeenti nit yu mel ni moom ci adduna bii billaahi wallaahi taala lu néew mooy dem safara lu tuutee dem safara maa ko waaye tey nag ci tey ah la ma waxoon dëgg la de lu ëpp ci nit ñi jàngkat yi ñoo tax nit ñi mënuñu xam yàlla lépp ci nit ñi jàng jàngkat yi Cheikh Moussa mu ne jàngkat yi ñoo tax nit ñi mënuñu xam yàlla parce que liñ jàng rek lay yaakaar ne mooy moom waaye fekk na du moom de jàng baax na lool waaye doy jàng baax na lool waaye doy jàng boo jàngee ba noppi dangay fexe nga wuti xam-xam ban xam-xam mooy tawhidu ilaahi tawhid la yàlla di fay yomal xiyaam fayu leneen taw la yàlla di fay yomal xayam fayu leneen ma ne képp ku réere yàlla yomal xayam nga dugg àjjana yàlla fayu la jëf joo ko liggéeyee ba tax mu dugg dugal àjjana waaye nee na nag yërmandeem jiitu na mbugalam kon ñi wóolu foofu ba léegi waaye nay uti ngërëm fu ñuy amee ngërëm ànd ak cheikh mu rabbi rek mu gindi li ci leeru somborom loo jëfati mu baax loo waxati mu baax loo waxati mu jub loolu mooy xam-xam xam-xam du dagg mukk xel mu xam-xam du dagg jaamu yàlla du dagg mukk jaamu yàlla du dagg mukk fi nit ki nekkee ci sukkuraat bu benn noxo génnee mu génn jamaan foofu la yàlla gën a bëgg nga jaamu ko kon bu Cheikh Moussa taxawee bi yàgg mu ne danaa tàqale charia islam nag danañ ma jam waaye suñ ma jamee nañ ma laaj si rek sëñ Tuubaa noonu fa kullu man saa la ni fàlli jabaab xam laa wala tujadu la ahlul kitab waaye defe naa kenn waxu di ko laaji ca lam wax wa man taraka sikir laa li sikir xëyri fa xumlu laa ku bàyyi baatub laa ilaha illa di wax leneen dof nga buy kaay kaay Bamba ko wax Cheikh Moussa mu ne charia dafa dabe te jotewul ñi xam loolu baax na lool lu yonent bi santaane baax na lu mu baaxul waaye li yàlla sant nga dem ba mënatu ko looloo wàcc na waaye lim santaane ca dogu ca muy tawhidu ilaaya di islam loola du mas a du mas a dagg gis naa ku xam ne feebar ñi ne ko baxal koor gis naa ku xam ne ay ansam mënatu ko ñi ne ko baxal koor waaye déggaguma benn jullit bu maram ma wax baxal islam déggaguma ko kon lan mooy islam nit tur yu wuutee la ñuy wuutee sharia yoon la fu mu jëm ci dëkk boo xaggul xag tardé nga bi ñëpp jógee kenn ku ne nga dëkk jublu si mburaay bi nga ci xam nga ne xegsi nga mburaay waaye soo nekkee ci diggante bi xegsi wu la mburaay yow li nga soxla biir mburaay mbaa da nga ko am kon sharia yoon la fan la jëm ci dëkk fexeel àgg ci dëkk ba mooy lan xamal lan mooy diine islam boo xamee islam da xam sa bopp xam sa morom xam sa borom loolu mooy islam tey ci jamono nag charia ñëw wàcc rek ñi dajewu doon ak yonent yu njëkk ya xamuñ ñoom lan lañ yoroon nanguluñ leen mënuñ leen a xam la ñu ba mën a defar jaame yàlla yi tax na wasila yi fi nekk fi mu nekk nii kenn ku ne xam bu nga ngay nga ñi jombale la ko gis nga Rasulullaay Sëriñ Tuubaa ba mu yëkkatee baatu laa ilaaha illallaah sekkere ba dañ ko jombale xam-xamu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañ ne waru ko xam Cheikh Moussa yëkkati ko ñu ne warta xam li Sëriñ Tuubaa xam ah waaw wa maa xalaqtu in jinne wala si illaa li yahbudoon laa xamul xanaa yàlla waxul loolu bind mu ni ak jinne loolu ñu jaamu ma ñu njàkk ña nit lexuñ wala duhuñ ay nit wala ñun dañ war a dañ war a jaamu yàlla comme ñooñu nañ waroon jaamu yàlla su fekkee dañ war a jaamu yàlla na yonent yi waroon jaamu yàlla kon war nañu xam la yonent yi xamoon ba mën a jaamu yàlla loolu tey moo échec tey waaye njàmme réparé na ci lu bari lu bari kon mu suñu bëgg a liggéey ci diine islam nañ fexe xam yàlla charia jëmm yee ko moom islam ruuxu gi xol bi ñoo yee ko moom ku amul Cheikh Oumar Rabbi sa ruuxu mënta sell ku amul Cheikh Oumar Rabbi sa xol mënta sell xol bu sellut borom mënta jaamu yàlla jëmm du julli xol mooy julli jëmm du julli xol mooy julli xol day set borom mën a julli mu nangu ñun charia wax nañ ko ilimaan bu taxawee ca minbar ba di julli nanguluñ ko jullin gi sàppe su njàkk si kuñ ca nangul danañ jéggal ilimaan bi jéggal mbooloo mi lu am la gëm nañ ko itamit waaw suñ ci jéggalu kenn nag taxañ julli gi yépp dóor ko ilimaan gi waaye kon ñoom buñ xamoon lan mooy jiite kay wax dëgg dañ fexe seen xol ku njëkkalante élimaan te sa xol bi setul kon am nga problème kon baatu laa ilaaha illallaah mooy julli gi moo tax julli baax waaye baat bi sekkere la am inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar julli dana fekk ñaawteef ak luñ sib loolu la yàlla wax ñaawteef yi ak luñ sib nekkul suñu diggante ak suñu borom suma diggante ak samay moromi doomu aadama bul ma bañ bu ma la bañ bul ma xas bu ma la xas bul ma noonu bu ma la noonu bul ma yàqal bu ma la yàqal kasaay ko loolu su ko ñë ñëpp marché woon adduna jàmm rek am kenn ku ne da nga am jàmm waaye sa digganteeg sa borom ndax libre na wax jaa ngi foofu ndax sa digganteeg borom sa borom libre na fekk xamoo yàlla sa digganteeg sa borom libre soo xamee yàlla nag alhamdulilah rabbil moom ku ci àgg taxaw moo tax si sëñ Tuubaa ne xëyatu wa niha illee yantu sal hidaay fi rasul laay teg sama tànk benn wëllu yàlla mosu ko wees waaye fi Cheikh Moussa teg suñuy tànk benn wëllu yàlla mosu ko weesu moo tax Cheikh Souleymane man li man tey kon nag borom may du weddi may Cheikh Souleymane yàlla may na la jagleel na la yàlla na jëm kanam yàlla na yokk yàlla na yokk ba faw te ànd ak barke ngërëm yàlla na yàlla yokk wilaay bi man nag say taalibe yëpp gërëm naa leen ñi ma xam ak ñi ma xamul gërëm naa leen sant naa leen man li ma xam taalibe taalibe day bëgg sëriñam taalibe day fonk sëriñam taalibe day respect sëriñam taalibe day liggéeyal sëriñam billaahi wallaahi taalaahi wettu lu ñàkk Cheikh Moussa Cissé moo tax may ko li ko may defal na Cheikh Moussa luñ ko defal ngelaw yi na xeddi néegam mu ñëw xeddi néegam xëddee ko néegam waaye defe naa am nga xëdd bu gën ba nga defaloon sëriñ bi moo tax mu ne ragaluma bor dama am pay dëgg dëgg dëgg Cheikh Moussa moom Cheikh Moussa mooy gor barke laa ilaha toog naa yi mu ne ma gàlloo ma ne ko siise mu ne ma su ma juróom fukki junne ya ma joxoon sama sang bu tedd ba Serigne Touba su ma yëgoon mooy téeméeri junne fay ne ma ba wóor ma fay na ma ba wóor ma ma ne ko moo ne ku baax ki man ngay fay bor de mu daal di ree sëgg Cheikh ñaan loo defal Cheikh musa fay na la ba wër ba mu la joxee àq ka rek nga ko mënatul fay parce que du bar loolu moom du lu kenn man fay ngay ñaagi ñaagi rek yaa ngi moom ba xëy fekki njàmme may wax nag toolu islam bii de tawhid bii ku ci Cheikh Moussa daje naw nga ko ku ci Cheikh Moussa daje bokk ak moom jamono naw nga ko sant nga ko gërëm nga ko ndax jëf nga ci loo manut waxuma nag ñi nga xam ne ñoom yàlla waxloowul leen joxul leen sañ-sañ bañ mën a defar jàmm yàlla kon mboolem Cheikh yi Serigne Touba yi gàcce ngàllaama Cheikh Moussa si siggil na ñëpp maa la wax loolu siggil na Serigne Touba siggil mboolem Cheikh yi ndax lii la sëñ Tuubaa bëggoon ci jàmm yàlla yi defal seen xol ñëpp jàkkaarloog seen i àjjana fii ci ci àdduna te yàlla joxul ko loola ngir ngir liggéey ci géej gi. géej gi rek ko teel liggéey loolu waaye lii la pare woon commencé woon na ko di ko liggéey ndax ñaata cheikh yoo xam ne kenn ku ne yaa ngi fees tell ak leer ëpp na ñetti téeméeri cheikh yoo xam ne sëñ Tuubaa leen defar. waaye njàmme rek nga dégg mu yëkkati faydu bii tàllal ko jàmm yàlla yi te koy ñëw doo wàññeeku indiwaat rek. ki a yor dëgg ki a xam dëgg ki a joxe dëgg yal nañu yàlla fayal Cheikh Moussa yal nañu yàlla fayal Cheikh Moussa ngërëm lu xamul xàpp barke bu xamul bàkk yal na yàlla defal ko rek Cheikh Souleymane yal na yàlla guddal fan wi yal na yàlla guddal fan wi wéral cër yi lool wéral jëmm ji lool yàlla yàlla guddal fan yi su ma mënoon nga dund fanu nooxoon wa te yàlla du la taqal doo naax mukk yal yàlla defal la lool barkeel laa ilaha billaahi gërëm naa la billaahi gërëm naa la ci liggéey bii nga liggéeyal Cheikh Moussa waaye liggéeyal bi nga liggéeyal jaami yàlla yi te amoo ci benn benn benn tiituwaay eh, allahu akbar eh, sant naa la gërëm naa la waaye sunu sang Cheikh Moussa fi ma ko njëkk a yéemee rek mooy keroog ba ko sunu borom joxee xam-xam bi jaar ci Serigne Touba Serigne Touba dem na bàyyam maam moo xoolee yee dem na. xam-xam bi bëri na ku ko ku tey xam ne lii mooy dëgg nga uwaat ko ngir li ci xew ba ko Serigne Touba yëkkatee na ko Touba bi def lu da ko génne juddum bi ak saa yu lu mu pare defar jàmm yàlla yëpp ñëpp di seen aj àjjana di seen kër waaye talu ko waaye liggéeyam yëpp sell na liggéeyam sell na ndax liggéeyam mooy dox ba léegi waaye dama ne moom bu fi nekkoon ni ko noon nii Cheikh Moussa Cissé di liggéey lay liggéey lu ko raw ndax moo def ci sëriñ bi li mu li mu def ci jàmmi yàlla yi tey moo waral mbooloo mi tey waaye lam na moon mooy continuer rek liggéey waaye ba ba mu baxee julli tëralee julli tëral jàng alxuraan ne ku bëgg ag ci yàlla toogal mënatu may xam ne lu ñuul ci këyit gis nga képp ku fi baax say bokk la sonal kenn sonalu ko ay bokkam ma ko sonal rasulullaay ay bokkam ma ko sonal waaye dara fu mujj liggéeyal yàlla ba noppi yàlla fay ko fayaale ñépp ba ñépp xam ne lu seen morom loolu la yàlla defal sëriñ Touba liggéey ni ci géej gi lu bant almet bu ànd ak safara mënulu ko géej gi tubaab bi mënalu ko mu del siwaat léppam baax kon yàlla dafa du bëggoon won jaami yàlla yi kan mooy sëriñ Touba ñi xam ne kenn la ci jamono moo tax may wax ne bu ma rusloo rasulullah sallallahu alayhi wasallam damay wax ne gisuma moromam ci jamono billaahi walaay waaye rus naa ko nag ngir wasi mooy wasilaam moom sëñ Tuubaa rusulaay mooy wasilaam waaye su ma rusuloo dama ne du moromam sax loolu lay wax toog naa ku baax yi musa Tuubaa Cheikh Moussa sallallahu alayhi wa mu ne ma yun ci yàlla Muhammad yun ci yàlla mu ne ma yun ci yàlla bu fekkoon na dañuy daje woon toog ci benn place ñu toog ba waxtu yu julli jot ñu su élimaan su ma gestoo Rasulaay si sama wet gestu Cheikh Ahmad Xaadimu Rasulaay sama wet danaa xëcc Cheikh Ahmadou Bamba teg ko suma kanam mu jiite ma ngir mooy sama wasila ca laa xam ne ku la xamal yàlla mooy sa yonent ca laa xamee ne képp ku la gindi ci leeru yàlla gii mooy sa yonent mooy sa rasulullah sa ku yàlla gërëm la ku rasulullah gërëm la ku Sëriñ Tuubaa gërëm la ku njabootu maam borom Tuubaa gërëm la ku maam moo xale ji gërëm la ñun gërëm nañ ko allahumma salli ala sayyidina Cheikh Moussa sallallahu alayhi wa sallam barke borom daaru yàlla nañ fi yàgg di daje bu kenn manqué di fekk borom bis bi barke borom Tuubaa alhamdulilah baal leen maa ko baal naa ñëpp dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax ni su ko xaari doon jar doonaa ko am. abonné seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.